c'est c'est pour moi c'est une victoire de la démocratie c'est une victoire de la République ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale mm-hmm. mooy nit ñi am na bu la taxaw ci mbedd mi saaga nit ñi wax diw la diw la mais dañoo dem Assemblée nationale ne dañu naan une commission d'enquête parce qu'ils ont des soupçons sur la procédure ils ont des soupçons sur la gestion du processus loolu man gisuma ku ko mën a bañ. sous le pression ñoom on peut comprendre ah waaw ku ko mën a bañ mais li ñu comprendrewul mais 120 députés ñoo mais attendez mais dama la bu ko Benno defutoon jàppale wutoon mais dañu ne Benno est contre la transparence que am na lu ñuy nëbb. te nag dafa fekk dara nëb amuñ ko fi lu ñuy nëb. mais en cette transparence parce que aussi politique yi xam nañu souvent jeu bi ñuy joué ku bokkul da ngay kaas da ngay dingat. mais de là à à à rabaisser ñi war a arbitrer élection yi. conseil constitutionnel mais attendez mais c'est c'est aussi des. des juges mais maa ngi mhm. arbitrage ce que bokkul mais mais déedéet mais déedéet jeu électoral l'arbitre le juge des élections c'est le conseil constitutionnel. de non mais non attendez xam c'est des qualifications pour moi c'est des qualifications et c'est la responsabilité de ceux qui l'ont dit. ngeen appuyer mais min la ma jàpp non ñun li ñu ne nañu leeral li ñu wax. ok APR est tout le principe. que nañu leeral li ñu wax donc loolu y' a pas de problème là-dessus bi beneen bi man dégg naa wax séparation des pouvoirs. Mm-hmm. mais je ne vois pas en quoi une commission d' enquête qui concernerait des magistrats soit une une violation du principe de la séparation des pouvoirs mais sépara séparation des mooy la mooy pouvoir législatif dafa am pouvoir exécutif dafa am pouvoir judiciaire am kon cela veut dire que bu fekkee ni pouvoir législatif bi convoqué na kenn ci ñenn pouvoir yi il su ma assemblée nationale convoqué war naa mën a bañ a wuyu au nom du principe de la séparation des pouvoirs amul fenn. fen fenn ça veut dire que kon ça veut finalement l' assemblée nationale xam nga assemblée nationale dañu ne mooy contrôler l' action l' action publique. Mhm. c' est à dire que les politiques publiques l' des politiques publiques c' à l' assemblée nationale mais la politique de justice est une politique publique donc pour moi il y a aucun et, et, et dans leur texte et aujourd'hui ils l'ont rappelé mmh. moi il y a un article quand même qui dit que l'Assemblée nationale peut inviter toute personne moi aussi moi j'ai beaucoup de respect pour les magistrats de ce pays qui ont participé à l'édification d'un état de droit mais il faut quand même qu'on se dise que ah, attendez le, le, le, le ministre le directeur général le préfet comme le magistrat c'est aussi des citoyens mmh. qui est dans un état de droit réel moi où ceux qui font le droit sont soumis au droit. mais ce nekkuñ di jouer ak loolu garaaw loo xam ne mën na am conséquence. yu bon moi je ne crois pas si chacun respecte son domaine et que ñu ressaisir c'est-à-dire que beaucoup se sont prononcés alors qu'ils ne connaissent pas le contenu de la résolution. ça aussi c'est un problème doo lire benn communiqué ou réaction d'un parti dans sa permanence après tu réagis comme ça non da nga war a xaar ba lu officiel résolution bi ñu gis. man gisuma ci lu nekk attentat à la démocratie gisuma ci lu nekk attentat à la séparation des pouvoirs si chacun reprend sa lucidité et analyse froidement et maintenant se soumettre quand même nga man euh, am na ñu nga xam ne xam nañ leen mhm. man am naa ci position ci ay naa ci position ci ay magistrats même des magistrats qu'on connaît qui sont d'une probité exceptionnelle et c'est c'est probité c'est cette présomption de probité qui a conduit le chef de l'État à le nommer par décret donc bu fekkee ne en cause président la gën a am lu koy métti parce que moom moo am ci ñoom confiance nommé leen foofu mhm. donc forcément il faut qu'on revienne sur terre et se dire nañ xool l'intérêt du pays l'intérêt de la République du Sénégal et qu'on cache qu'on mette de côté tous les jeux politiciens yu nga mën a la ak magistrat yi nga xam ne bu njëkk ENAM la woon magistrature ci la bokkoon yow war am ko leen gën a xam ko comprendre par rapport au la gravité de de de de ces de ces accusations. oui mais même si on a séparé l'école de formation judiciaire ak c'est la même famille. oui c'est tous des hauts fonctionnaires. qui ont la charge. qui ont de la continuité de l'État parce que là le plus important c'est-à-dire que l'État lu koy tabax lu ko yore du homme politique yi. ce sont les hauts fonctionnaires qui travaillent préserver mais gën a leen sunu caaxaan yi entre guillemets. exactement pour man commission d'enquête parlementaire bi. ça participe à la à préservation de leur intégrité parce que yow mën nga wax lu nga xam ne tegoo ko fenn. je vous cette commission a été mise en place dans leur intérêt ñoom seen bopp. bu man nit wax na ni tuumaal ma lu nga xam ne amut ñu ne daf may bu commission d'enquête pour ma leeral man soo ma convoqué ma dem wuyu ji. man xam nga man man man non mais c'est un citoyen qui semble. loolu la boobu il agit en tant que citoyen. Mm-hmm. et il a le droit. parce que moom dafa jàpp ni am na ku ko diffamé mu dem porter ji plainte bu boobaa justice baa ngi foofu moom si boppam day dem wuyu ji juge. nee nañu nag déglu ma rek déglu ma déglu moom moom ki nekk membre conseil constitutionnel dem porter ji plainte suba juge bi dana ko oo bu ko juge bi oowee ñi mu porter plainte waxtaan mais juge am na droit oo ko assemblée nationale nga moo incarne le pouvoir législatif mënu ko par une commission d' enquête mënu mënu leen convoqué loolu man gisuma ko fenn mais a delloo mu nekk un un dialogue des institutions il y chaque institution à sa à sa, à sa compétence et ses attributions que chacun que respecte ses attributions et ses compétences conseil constitutionnel bu mu toogee conseil constitutionnel di écouter candidats yi di déglu mandataires yi di vérifier amul benn député bu fa dem bëgg a interférer mm-hmm. amul benn pouvoir exécutif bu fa dem di fa interférer président de la république nga xam ne moom mooy seen chef ñoom ñëpp mooy clé de